fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko. mbokk yi gannaaw bu nu sante nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغي بال حق نيب تاي بالو حق نيب يالا نانو يالا بولي جيغل توم بي ني فاتلانتي دا فا جيم تي لو خامني سوريتو دارا يالا مو نيو يونتي بي صلى الله عليه وسلم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 gaawu moo ca topp kon gaawu luy ñëw la waaye ku dugg ci gaawu yi dana xam ne dibee da ca topp noonu lañuy ñuy toftalante ba ba ajjuma di dellu si waat neex naa nangu lool neex naa gëm lool kum wóor ne dajeeg suñu boroom mi ngi ñëw nay jëfe ndigal te bàyyi tara euh, muy bis boo xam ne nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee bu nu ca àggee nit dana jàkkaarloog boroomam yàlla subhanahu wa taala ne ko yàlla tabarakta wa taala it du yaa ma ne woon na nga moytu ak tooñ mu ne ko waaw maa ko waxoon mu ne ko tey nag dama bëgg nga bañ a dugal sama diggante yow kenn ci atte bi nga ma nar a atte dama bëgg nga bàyyi ma ma doon sama seeres bopp yàlla ne ko ah fekk yàlla noppi na bu yàgg kafa bi nafsika al yawma alayka shahida ah kay ayca bu la soobee waaye tey nag laaj ak tontu gi du doon làmmeñ ak làmmeñ cër yii nga yor moom la ñuy déglu ñu wax kenn ku ci nekk lam doon def ak lam doon bàyyi اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون muy benn kon nit dana am ku ko fee seere koo xam ne mat nañ juróomi xaaj waaye ba ca jiitu mooy ay cër yi nga xam ne kuy dem moom ngay àndal fooy dugg mu dugg fa ak yow su ko defee mu ne làmmeñ ay ca muy wax lam doon wax yàlla nay lépp di lu baax nopp ba cër yépp ak kenn ku ci nekk lam doon jariñ wax bokk yi foofu ku yeewu jóg taxaw dara méttiwu la war nga ne ko jàkk xam fi ngay dugal say tànk say yoxo saw làmmiñ say gët ba yépp àgg ndax benn par benn mooy wax te buñ ca daan kat du dem bàyyi fa cëree ci des ñooy àndandoo dugg fa ñuy dugg ndax ñoo ko àndoon kon boog cëree ñoom duñ gut aw lay lu dul nangu rek la leen yàlla def loo bisu keroog kenn ku ci nekk wax loolu mbokk yi yomb na dégg suñ jamono am na lu ñuy wax waar lu xew waar nga xam ne dañuy indi la nga waxoon daaw wala daaw jéeg boole ko li nga wax ren ba xam benn lay doonam déet te doo ko weddi dana la wóor ni kii di wax yow la mën ngaa dem ba fàttaliku sax fa nga ko doon wax te mbub mii nga ci sol ne amoon nga ko donte fàtte nga ne amoon nga mat di waajal la moo tax nee na bu bis ba ñëwee shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa bi bima kaanu yaamaluun su ko defee moom ci boppam moo moo ma ne woon yàlla bu ma boolee kenn mu di ma seere bàyyi ma sama bopp ma layal sama bopp ndax wóoluwut nit ñi kenn bokk yi foofu fii lañuy toog ci àdduna di bëgg mbooloo mi teew ñuy wax ci yow lu baax di wax lu baax loo xam ne lenn li def nga ko lenn li defoo ko muy ab jay nga ne miig ak moom xam ne lii waa ji di wax du dëgg waaye foofu duñu laaj kenn ndax yaa ñaan yëkkati sa loxo ne yàlla may ma ma seer doon sama seeres bopp yàlla ne ah kay daal di waxloo sa cër yi ñuy wax na nga doon waxe académique bu bëggee xuloog cër yi ne li ma shahidtum alayna lu tax ngeen di ma seere li ngeen di wax ñu ne ko ah dañ cee am digal qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay ki ñu wax loolu moo la moo mooy wax loolu luy wax rek moo koy wax loolu ñaareelu seere bi bii seere doomu aadama ëllëg mooy ñaari malaayika yi ñu yàlla booleel kii ndeyjoor kii càmmooñ دين فك القرآن إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب عتيد كو ديف لو باخ كيفيت ناي جور بيند كو ديف سفان كيفيت تا موي بيند دي تاخير لو بخام دا توبم ديت مو فار سو توبوت مو اريستري كو تا بوكي سي جامونو ليك نيت واخ لو خامني دوتو كو مانا دابي bu ko dal dalu di dindi fa mu ko waxee woon fa saasa day daal di wër fépp mën nay dox ba teseeg ko koy xoole te du xam ne mi ko koy xool maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lu watt rek ñu daal koy kapte daal di koy aw aw ko dal di bind bu dee lu baax moom kooko bind na moom bu dee ab safaanit kooko dana yeex a bind tuuti waaye su yéexee tuub mu bind yàlla na ci yàlla musal teewul nag euh, buntu tuuba ngi ubbi ko bokk yi kon ñaareelu seere mooy malaayika yi su ëllëgee su waa ji naree weddi keneen muy malaayika yi doon bind ñu def ko ni ñuy def ay euh, photocopier photocopie mën ngaa jël wenn kayit Sénégal yëpp am ci ku nekk benn te yow kenn yaa ko bind ñu tasaare ko ñépp ñuy jàng xanaa su boobaa suñ ca gisee saw tur ak saw sa signature xanaa sa turu ndey ak baay ak dëkk ba nga dëkkoon xanaa su boobaa weddi du mën a am <coughs> mooy fi wax ci alxuraan wa ammaa man uutiya kitaabahu bi yaminihi fa yaquulu haa'umu iqra'u kitaabiya su sa gisee lu ko neexul nag ku ne yor kayit bi di jàng mu ne ma xool كوكو جاخو موغيس خامن خيل موم مي موكو موم مون مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نكتو يو لما ويتون من كان في برب كن جسوما ما دف جن ميغاك موم نكتو يو أمنا نكتون جيب waye wessuna xam nga amutu njariñ waye bokk yi ñettel si moy souf si ñuy dox ci kawam nga xamne lu aduna yaatu yaatu bo démé souf sa nga fay fekk lo fa mëna defit ci kaw souf si nga ko defoon xeyna na xamuñu leen ni souf soosu day nekk xéré bu ëllëgé lolou mi ci alquran ida zulzilati l ardu zilzalaha wa axrajati l ardu atqaalaha wa qaala l insaanu maa laha saa bu ñu jeqee suuf si ne ko moom lii nit ki xool ko ne pat suuf ne diw mi moo ko moom moo jóge woon fii dem réew sàngam bañ jàpp ne bu ko defee fii danañ ko xam mu génn réew mi te xamul ne ci kaw suuf si lay wàccaat bu yéegee fii wàccaat ci meneen réew ci kaw suuf si dong lay yéeg te suuf si moom yàlla da ko safale li ci taqu li ci taqaloo wut bëriwul géej gee leen di tàggale te géej gi ci kaw suuf si la taxaw kon fu ko waay mën defee suuf da day seere bu ëllëgee kon boog jéego yi ñu dox ci kaw suuf yàlla na yàlla dimbalanu ba lépp di doon lu baax ak lañ cay wax la ci gën a am solo mooy dox dem waaj jóg julli bu ma nee ca am ci jàkka ja baax na su ko munta am nga woo ña fa dend ngeen bokk ko julli yooyu jéego ku ko suuf seereel lu bari mën naa rafet njort ak di dox jëm foo xam ni fii da nga fa dégg ab safaan nga war leen koo tere ji al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar di dox ci loolu kese kese kese kese loolu it seere sa cay nekk doo ko siq kenn yaa koy moomal sa bopp na nga moomee lee ma weesu léegi kon bo kenn ku nekk mën naa xam bu jógee fii jéego yi muy dox jëm ca ba xam bëgg na bu ëllëgee bu ko suuf di seere mu nangu ñëpp dégg waaw wala déet yàlla na yàlla suturaal seeres ñeenteel bi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seeres ñeenteel bi ndaw ku mat seere moom la benn waykat di wax am kum doon wax naan rubba rajulin qiimatan ka alfi wa rubba alfin qiimatan ka uffi ci yonent bi la la jëkk a jekk door a jàll ci kum comme ci jublu wala ku muy jàll yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bu yàlla lemee asamaan ak suuf teg lem suuf teg mooy fi muy wax ne yawma tubaddalu al ardu gayra al ard wa samawaat wa barazu lillahi lwaxidi lillahi lwaxidi al qaxaar nga xam ne nattukaay yi amoon di ci natt yëpp amatuñ solo seen liggéey jeex na ñañ xamoon ñi nattalaate ñépp seen ak natt amatu solo jaaxal nañ ana koy natt nattkat bu mag bi nga xam ne balaasam la muy natte du ëpp du yées kenn ku ci nekk la nga am lañ la nattal yam te kepp su boobaa yonent bii sallallahu alayhi wa sallam day doon seere ci aw xeetam képp koo ci xam ne ma nga woon ca lam war a nekk téye na cëram yi ba yépp dox na mu war a doxe ci lu baax su boobaa moom day nekk ca gannaaw yonent ba ci xéewal ya ñeneen ña ca des nag buñ ne ci yonent bi man de ci yow laa nekkoon ne moom de ci yonent bi la bokkoon yàlla nañu ci yàlla mos yonent bi xool xool xool du ko xàmmee ci njaboot gi mu ne ah yàlla li bu la sobee nga yërëm ko waaye nag wax dëgg yàlla xamee mu ko sama njaboot nag ما في القرآن دي وخنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا لين بق موي أكن يخون يدون صوف نخمن أمني كن دون أرت أكن يخون يدون أبخات أسماني نخمن كن دون أرت ويبكي لولا بس ورنا moo tax ku ko xam na xam ne bis ba jege na lool ni aljumaa ak gaawu jege bu bii nee diis rek boobaa ciy topp te bu yàlla di laaj du laaj ay dëkkandoo ndax kii du wóolu ay dëkkandoom ndax am ñàkkut mu xam ca kook la mu ko ëmbaloon dañ naan mutuma mënumaa seere du bëgg yit kennam seere ko kum daan woo naan laaj leen diw moom a xam waaye cëram yi nga xam ne moom la daa jëfandikoo moom la yàlla di laaj lu mat a bàyyi xel la ñaareel ba dana laaj malaayika yi nga xam ne ana la ngeen bindoon ñu ne mi ngi nii ñetteel ba mu laaj suuf si faca waa gi daan dox ak lam ci daan jëfandikoo day defe ne dana dégg rek ndekete yoo léeg nga wax ak nit mu def ci jibaam lu muy toxale say wax yóbbu ko ci keneen te yëgoo woon ne mi moi koy jël ñeenteel ba nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom la ñëpp di tuddoo fexe ba bu geesoo ne waaw waaw kii sama waa la bokk jar lu nek waaye su ne yàlla bu la sewee nga yërëm ko de ndax maa ngi ñoo niroo ab bind wa ma rahmatan lil alamin bind bind ñoo ko niroole bu la soobee nga yërëm ko waaye nag xàmmewuma ko woon sama njaboot jalan yàlla ñu ci musal waaye nag seere su mujj si ka koy mujje mooy ki nga xam ne ñii may wax ñépp liñ doon seere moo leen ko gën a xam fuuf moo leen ko gën a fekke mooy allahu jalla jalaalu mooy ki nga xam ne fu ñu nekk ak lu ñu fa nekke ak lu ñu fa mën a nekke dara umpu ko ci boo demee ci alxuraan da nga ca fekk wa huwa maakum aynama kuntum آه، أن الله قد أحاط بكل شيء علما آه، كوكو نك موي موجي موم موم ري سيت ليرالال مولا ما نك كي كات لام دون ديف لي ماكو موم لي موم لي ما تاخور مو ديكو ديف لي تاخوما لام تاخوت نك داكاي ديرلو كوكا موكو مام دي lam ca moom lay jël loolu mooy ak maandu kenn ku nekk bu ay yóbbante ñëwee jóge bëgg barab sàngam kenn ku ci nekk ab yóbbanteem lay jël su fekkee ku maandu la bàyyi fa ñu def seen yóbbante mooy fi mu wax ci alquran ne wa ma takunu fi sha'nin wa tatlu minhu min quranin wa ma wala min amalin illa kunna aleykum shuhuda eh, kuy yow xaaju gudi di julli mi ngi ne ko jak xamna yalla tax wala yàlla tax kuy jàng alquran di dul jeex di wëlbati foko ko fekk mi ngi ko jukki yàlla yàlla gëna xam ba xam mo tax wala taxul illa kunna alaykum shuhudan ithufiduna tufiduuna وما wa عن ربك من مثقال min min midqaali zarratin في fi ولا wala fi l ard wala asxara min dalik kon boog yàlla mi nga xam ne yaraaka xiina taquum wa taqallubuka awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli cheyin shahid doy na sëkk kon ku jàpp ne fii ñu nekk lu wéy wéy na juum na ndax waar a ngi fi waar ne ko gëstu ko dem gëstu ji luy waar lu waaye waxoon daaw ak daaw jéeg mën nañ ko ko delloosi si léegi boole ko li mu wax tey te sëñ Abdou Lahad mosoon naa wax ne nit ki waxi daawam ak waxi nenam soo ko boolee muy lenn soo jàpp waaye waaye ngooga soo jàpp xarit xarita ngooga kon safaan bi mooy safaan ba ñu bari nag dañ naan boo leen bàyyi naa la yàlla ñu ne bàyyi nga kook akub xaritam yàlla li nit di yek ci moromam bay ak mom yalla yëg ko ci kenn li nit di yek ci moromam jaamam banaan nako ko ndax doomi diwa jarbaatub diwa setup diwa yalla sheikh ko kenn lam yalid walam yurad amul benn yëg yeg bu dul ki jog taxaw di dox di wax ci lu bax ci ndigalam kep su amé lu mu yek ci koko dong wala koy yek te loola it payam gaa nga fa tege neexalu ko ca su defee mu fay ko su néew su su su su defut ma ngi ko fa tegal la ca tege rek yàlla nu ñu ci yàlla musal am na fi mu wax ci alxuraan walakin zanantum anna allaha la yaalamu kathir mimma taamaluun wa dalikum zannukum njort rek la njort nit ñi sax ñi ngi xam lii xew lu bari sakkantumaak alxaaliq xaaliqu kulli shay'in kon boog ñu bàyyi xel ne bis ngi ñëw bu jege boo xam ne juróomi seere ngi taxaw kenn du ca jeng dara du tan tarfatal ayin tarfata ayin ba ca jiitu mooy suñ cër yi yaari malaayika yi bind suñuy jëf su cër yi bëggee weddi ñu tasaare këyit mbind la nga doon def lépp nit ñi gis ko iqra kitabak. waye suuf si ñu doon dox waye sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy tuddo nan mom lañ top waye nak ki mu tiliku lu bokku ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla ande kenn ku dib julit mënu ko bañ yoon wu ñuy wara jaar ba man nga gañe Sëñ touba gisaguma ko setlo ko